Vinicius Junior avec Brésil mi daal di Sadio Mané cité dans ce ballon d'or Guardiola bi nga xam ne mi ngi sànni xeer Cristiano Ronaldo loolu la ñu fas yéene waxtaanee gay ak yéen tey ci iSport TV merci encore tu confiance renouvelée bi ñi feebar ak ñi lal ak hôpital yi ñi dëddu àdduna ñëpp ñu ngi leen di fàttaliku saa su nekk ah di ñaanal ñi nekk ci lal ñu wér mais entre autres également euh, lii di waa AS Pikine AS Pikine gars yi ñoom kafuñu ne deux matchs rek ñu daal di dàq seen entraîneur ndaw lañ daal di dàq ah, donc ma ko ki nga xam ne nag mooy nekk Joseph Senghor ah, nekkoon fi entraîneur bu Casa Sport dàq nañ ko gannaaw ñaari match yoo xam premier match bi AS Pikine dafa daal di euh, lajj daal lajj plutôt bi deuxième bi ñu daal di donc tembo waaye nag ñoom kafuñu ci réewuñu ci aw fawuñu ci benn yoon donc loolu daal lañu def ab communiqué wax ne daal dañoo déggoo donc commun accord pour daal di koy dàq maintenant su ma déggee dàq nag ñu ne commun accord moom loolu moom daf may xaw a Yim, lol, lol, lol, lol, pendant ce temps-là, qui n'a que dit, bon, papite euh, 8, hein, Khamgen ko, moi, donc, qui, euh, dit, papi, pate Ismail 6, mom dal, n'est original, bi, mom dal, comme Vinicius Junior, dal, il y tank, n'est dal, mom mérité, won gagner ballon d'or, donc, moy donc, original, ballon d'or, qui nak dit, donc, Karim Benzegol, Benzema, mom nak, ben, gars, wo xam dal, mën nañ dal, faut dire, cadeau ham, kadou, mon n'a dit, kadou, yo, yoy là, hein, ah. donc, le dal, di jël seul ko, wax ko, Karim Benzema, Benzema, ka d'accord, weer bi nag mooy da ko jël publier ko donc wan waa ji kan la li si des nag xamaguñ fa lay mujjee ah, wala fa la wan ne ni gën mujjee gëtëm waa ma Madrid nag ñoom daal kafuñu ci réew ji ñoom daal nee nañ ah, communiqué wuñ ci waxuñu ci benn yoon naqari na leen loolu nag moo tax Florentino Pérez nag gars yi gars yi bu ngi xaar lan la fas yéene daal di tontu ci lu ni mel Toni Kroos moom nag amul lu mu wax lu dul le meilleur wax naa ne ko démb moom daal fësal na li nga xam mooy jàppal tànkam ci di euh, donc euh, ci di Vinicius euh, Junior bi nga xam ne gars yi ne woon nañu moo naroon a jël ballon d'or bi finalement jëlu ko Rodri également moom nag kii danda Iniesta mu ne masqué euh, merecido plus que mérité muchas felicidades euh, Rodri muchas felicidades moi euh, toutes mes félicitations comme on dit donc Rodri quand même comme on dit Dieu le ballon d'or là mënuñu si dara <laughs> mënuñu si dara vote aussi beaucoup de xoolee da ngay yéeme moom it nee na remercier Carvajal parce que nee Carvajal aussi mérité le ballon d'or et que nee na bon mu jotee ballon d'or bi ba mu génnee ki ko njëkk est woo du keneen ko dul Carvajal le coéquipier de Vinicius Junior mais aussi ñoom ñaar ñoo gagné do coupe de bi ñoom ñaar ay espagnol la ñaa ah, aussi moo ko da koy tànk kii nag di Javier Tebas nee nak wa Real mom duñ sen victimisation bi mom amul ah, dafa ëpp dafa ëpp donc lolu warut nek nekk Javier Tebas nga mom dal comme que espagnol lo xamna espagnol lay jappal tank moom moy président bu Liga espagnol te pourtant supporter u Real Madrid la ah, donc moo ko Javier Tebas ne lu ni mel. L'entraîneur donc de Manchester City également ancien entraîneur du FC Barcelone mom dal nee na fi Ballon d'Or bi donc lutax Rodri jël ko jamono ji mo am ay ki moy parce que ay jamono Messi moko ko doon diko di tegle kenn rek moko ko sonal moy Cristiano Ronaldo te Cristiano Ronaldo Messi moy bayam <laughs> loolu la daal di wax kii di Guardiola donc moom la expliqué nee na Real moom nee na Real dafa boycotté ak yooyu nee na sincèrement club bu nekk am droit def lu la neex moom li mu gis daal mooy que ne léegi ballon d'or bi dafa ouvert par rapport ak ba fi Messi nekkee ak Ronaldo ndax temps yi moom da nga xam ne ñi ñoo koy gagné parce que ñoo fi mënoon nee na Ronaldo moom mënoon ñeneen ndax sur la woon waaye Messi moo nekkoon bàyyam kii nag di Rowan euh, Rowan euh, plutôt Williams moom nag nee na voilà fier et son rêve réalisé rêve moo nekkoon nag bokk ci meilleur gardien au monde yi bokk na ci parce que également mu nekk aussi le premier gardien de l'Afrique wax de comme club africain nga nek dal di bokk si ñu nominé ça c'est extraordinaire pendant ce temps là Vinicius Junior mom mi ngi reprendre entraînement mi normalement ak Real Madrid la Casablanca gis ngeen leen ñoom ñu ngi focus nek ci ba paré nak liñ def autour de cela moy nak communication ba xam ne jamono ñu wax ci ballon d'or bi loolu daal mooy stratégie de communication bo xamné ne nañ ko jëmone ji pendant ce temps du côté du Brésil nak ñom on parle de racisme racisme la wax nee nañ carrément dal walum racisme la quoi donc nee nañ fi ne li, euh, lii ñu teg Vinicius Junior dara bu ñuul moo ko ah, donc dara bu ñuul daal moo waral mais bu du lolu loolu yëfum racisme rek kese mo fi teg mais aussi di fatte rek ne également gars ah, donc c'est la première fois depuis six ans africain bokul ci top 5 en euh, top 10 li nga xam donc sax gars li di euh, ballon d'or européen bi donc da nga don gis Sadio Mané constamment wala nga gis benn Salah mais ren gisoo leen ci kenn ma ngoog et pendant ce temps aussi on prépare quand même le ballon d'or africain ñaar ñi favori ah hein. donc kii di Serou Guirassy ak Ademola Lukman Lookman bi nga xam nag gis ngeen ko Ademola Ademola Lookman dem na ci euh, ballon d'or man moy actuellement donc moy favori donc lola laa mën a hein. donc mom ak Serhou Guirassy gars yi di ma nekkoon information len jox bëggoon a jox ah di jégalu ci retard bi tay mais temps yi bëri mais on va enchaîner bioto bientôt information information on donne à vous n'a tout de suite sur Baba Show en attendant gay qui va waxoon len kala qui a encore pour l'histoire qui moi donc euh, Luis Suarez hein, beaucoup le Suarez mais qui Luis Suarez le premier milieu de terrain hein, espagnol pour gagné Ballon d'Or donc au quand même, depuis moom depuis moom espagnol gagné le Ballon d'Or Kidnam, donc Mongo, ngoog Luis c'était un milieu de terrain également et au oh, du il évoluait du côté du FC Barcelone c'était dans les années 60 61 64 Ce bar Christian, le